Why you don't ah, bonsoir Sénégalais Sénégalaises kontaan ci yéen <laughs> bëggee leen là il est 17 heures passées <laughs> à la 2STV l'homme international Papa mu leen di bëggal saa su ne di dugg seen xol yi di ko yëngal. di bañ ngeen stressé di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla mi ñu may ñu tal ak fekke ba ñëwaat mën a taxaw fii loolu ñu santee ko suñu borom di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin gërëmaat suñu borom mi ñu may tal ak fekke bañ mën leen a bégal di nuyu sama yaay ah ak sama papa alaaji Mama Ndiaye ak sénégalais yi ñi ñuy bëggee yëpp di nuyu nag sama papa alaaji alaaji Ndiaye nag ak sama sponsor international yaay Marème Ndiaye mi nga xamante ne mooy yaay Sofia di yaay jéeg bi foofu laay jaaree nag jox xale Sofia nag mu am nu mu defee ak yéen. man nga la tubaab dama laa bëgg. rek xam nga sa xol bi ah? maa ci ne. ah loolu dafa leer nañ <laughs> mais bëgg naa la. def nga sa été ma nuyu jéeg bi nga xam ne tey dafa fël fëlaale def la mu saf dëgg neexu def sañsam bu baax kontaan naa ci yow. Mhm. nuyu naa leen ami chers téléspectateurs am naa mbégte ah, comme d'habitude saa su nekk tàmm ngeen ko ci li nga

Kaolack Ndangaan ah jeeg baa ngi noonu nag. waaw kay heure baa jotati dañ naan laf cat laf cat. bisimilahi rahmaani rahim fas yéene kee génn alhamdulilahi rabil alamin comme d'habitude di ziar di béggee di safoo suñu heure jot na ku ne xam ne ne lundi la ba jeudi maa ngi nuyu ñëpp nuyu àdduna nuyu biir réew bitim réew nuyu waa 2STV gi yëpp bu ma limee damay juum Sadji Falaale jëmbang naan leen dugg si nañ suñu émission comme niñ ah, di leen ko defalee rek lundi ba jeudi tey lundi jeeg baa ngi nii Sadji Falaale jëmbang nuyoo baa ngi noonu ci ñëpp ak bépp jullit ñëpp nuyu ñëpp safoo ñëpp ci turoo ñëpp ah Sophia dégg nga li jeeg bi wax waaye tey tey ngeen ree ba dee tey tey façon tey artistes yi Papa Ndiaye ci ba mu gën nekk xale tey dama leen a bett yéen ñëpp ah. tey fi ma jëm ak yéen Sofia xam naa la loolu dama koy bàyyi ak yow ku ci ne rek may wax rek lu muy duróol artiste bu ma la tegal rek wax ma lu muy duróol jéeg bi wax ma lu muy duróol teewul it <laughs> teewul it li leen daan wax rek mm-hmm. dinañ leen bëggal waaye dinañ waxtaane mm-hmm. li nga xamante ni mooy doomu aadama mm-hmm. ndax doomu aadama yàlla da ko sàkk am yu bëri yu ko booleel muy ngor jom muñ xiif mar tële feebar wér wéradi yooyu yëpp dafa bokk ci nit tey nag gaa yi waxtaan ñu réunion léegi daan ne nañ leen indil ngor nit boo xiifee xiif xiif xiif ba gisoo la lekk àndal ak sa ngor ndax Serigne Saliou Mbacké bu baax mi daraan wax naan nit na nga fexe ba moo nekkee ci kaw suuf na nga reyante loo bëgg dugal sa biir bàmmeel nit boo nekkee ci kaw suuf yaay reyante loo yóbbu sa biir bàmmeel waaye sa biiru bopp gii la yàlla jox yàlla moom moo lay jox heure boo xëyee looy lekk ndax ku ne xam na ni ndékki añ reer yomb na yàlla sunu borom loolu nag du tee nag ñu leen di bëggal waaye teewul ñuy waxtaan ci xel yi ak di leen indiwaat di leen defal su fi yoo wax ci loolu ngor. waaw la Papa waxoon rek gémmiñ gu yàlla bind euh, def na ci tàngalu boromam. barke yonent bi barke yonent bi waaw loolu wax ju yeete la. <laughs> mais je pense que tey Sénégal ñu ci bëri ñàkk nañ seen ngor ngir lan liggéey ngir place ngir xëccoo ak. daraja ngir xëccoo ak maa xam diw bari na yaa nga xam ne wax dëgg yàlla Papa Ndiaye tey émission bi dinañ ko développé waxtaan parce que kat ñun matuñu waaye dañuy waxtaan rek ngir askan bi war a mën a gindiku ci loolu. gisoo léegi ñuy réunion caméraman yeeg yëpp ku ci ne laaj sa xalaat loolu mooy àdduna. mooy àdduna c'est la 2 nag la télé de la jeunesse. jéeg loo wax ci ngor bi comme li ñu waxtaanee rek. àdduna moom ngor dafa ngor jugee dara desatu fa. Mhm. li la war sa digganteek sa nawle gi rek mooy ngor. ci sa mhm. waajur ci lépp ci say mag ci say rak. Mhm. ki ngay àndal. ki ngay toogal jikko ko ngor mu ji la ngor ñu delloo wante ngor ak gore. lii lañ wax tey Sadji damay dem nag rési may leen nag fàttali ko tey fàttali ko laay ubbee rubrique fàttali dootu leen ko doon acca nañ dem clip bu ñëw ñu commenté Sophia doo leen doy tey Pape Diouf <laughs> ñu a fi indi bari na mhm. ak ñu fi war a indi tey ñu lamp jox ñëpp bari nañ Sophia tey gis naa tey travaux pratiques nga def waaw tey travaux pratiques laa def mais émission bee ko laaj xam nga boobu léegi fii nga toog lundi ba jeudi naan gaa yi ñëw leen annonceurs yi ñëw leen. indi mhm. leen seen produit ñu jaayal leen ko te ci émission na neex rek lay jaree ba tax na tey li ñu songu si fii de. et eh, tubarkàlla macha allah dama bëgg yéen téléspectateurs yi ngeen dugg si ci 88 628 14 13 ñu mën leen baaxee li nga xam ne mooy sunu ay cadeau yu baax yu riche ah tey Tamsir def fi jaar de faal faal télécommunication moo fi jaar dëgg neexul borom ville ah tubaarkàlla borom téléphone yu baax yi borom télé yu baax yi smartphone yu baax yi dëgg neexul ah wax dëgg yàlla incha allah papa Ndiaye après xam naa dangay mujj daagu ndànk rek daal di dem jël wane parce que kat sénégalais ma gis la xool de li may li may li ma li ma ci kii. li ngay wax ci faal télécommunication. xale bu yor téléphone bu baax ci dëkk bi fa nga ko jëlee moo ko yor waaw. jëlewul na ma yàlla baal jëlewul Dubaay jëlewul Colobane. déedéet. li muy jëlee mooy fu leer leer la koy indi teg. te dëkk bi léegi nag da ngay booy jënd da ngay jëndul leer de Sophie. te foofu sax nag boo fa demee danga naan may ma ma jàll pour dugg. eh. déggoo ma xale bu pare man maa bëgg ko pare. waaw yow fii nga mel faal faal la. waaw communication wax dëgg yàlla boo fa ñëwee day jaay téléphone yu baax mu ànd ak assurance nag parce que xam jamono ji dafa xaw a doy waar te faal moom wax dëgg yàlla day jaay électroménager téléphone télé ah lépp bàyyi bàyyiwul dara il faut jéggi seeti ko ko mënul ñàkk faal xam naa suba suba dañ fay dem daal di sàjj waxtaan ba jéggi seeti ko jéggi foo nga non seeti faal mënul ñàkk faal lay jaay ba pare garanti la garanti la mi ngi noonu téléphone yu baax waaw eh, télé écran plat yu baax noo ci faal rek la am. waaw dëgg lu neex kon sàjj leen rek woote ci numéro yi à tout moment tam mën nañ leen a may de. waaw dañuy may bëgg leen a sàjj rek woote. vacances yi ñu nox ñoom ba tabaski bi de maa la ko wax. waaw Sofia xam nga waaw te xam nga man tamit moom la mais du ma ko wane léegi cat baaxul. waaw camion télé la Alaaji Njaay teg. mi <laughs> ngi nii ci ginnaaw. ay télé bu ma moytuwul dama lay corota bo. <laughs> soxla de xel booy tëj la ba pare ba oh, fermati caabi. maa la ko wax ma émission lundi ba jeudi xam nga dafa xaw a gudd. Uh-huh. nga nar ci teg moment bii nii ba tabaski bi di ñëw nga nar a maye télé téléphone kon maa la ko mën ku mën loolu yaa pour yow Sofia ba pare may la garanti la may la ba pare garanti la ku mën loolu xanaa la garanti la lii prise waaye ah, ëpp na waaw jéeg tey neex nga ma trop ñëwal ba nii ma xool eh, tey hmm. dama saaj lii lan la tey dama saaj ji bëgg a woo xale yi ne leen ñu <laughs> falaale sànni saaj biram ku ma biram ku ma njaay maa boo yaasin jaal xaadim kase waaw si doon lay doon borom keppaar gi couture albi sëriñ Saaliwu Mbàkke borom ga coroon xëy ga la lamp laa lay may da nga lamp te maa ngi day jaw wuy ma lamp faal ak jeeg bi. attanu la. <laughs> yaakaar nga lool. moo lamp eh, ba pare ñun ñaan suñ couple lamp coofe. lamp dafa eh, dëgër seen couple saa eh, seen saa da koy bot. non dafa ànd. <laughs> wala jàpp dañuy bras nii la may def. ñu jéggal jàll. sañ sa nga. sama waa la jël leen ma ah, ma dama def à la légère rek. xam nga comme d'habitude. am ma koy jëlee. bàyyi ma def jël ko nii jël ko fu nga taxaw noonu wane sa bopp. nii laa koy jëlee allo allo. allo oui. waaw si nuyu nañ la. maa ngi lay fay yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm sant yàlla noo tudd ak fan nga ñu woowee. na yokk baatam waay yokk sa mu ne. aw seen yara star jëb laa tudd ani waa yara yu baax yi ak tëll yi kañ ngeen ñu defaral ay tamit nag non non man tailleur laa nag tailleur ah yaa ngi kon kañ nga ñu daggal tamit nag waaw ñu sa ci ma daggalee jéeg ba pare daggal la daggal ba ko jaay bu coupé waxala Sofia ma am lu mën a andil fii ci wat Sofia waxala Sofia bu coupé waaw wuy ma ko de kon yow daggaleel jéeg bi rek daa di may daggal ci wet bi. waaw sama star boobu. waa dégg nga loolu ko moom ko waaw paas ma koy awa yaraax couturière bu mag bi ci yaraax. waaw léegi namu naa la. Oh, madame Diouf du ay fo. waa du ay caaxaan de sa robe baax ah mais dëgg du neex de. yaa ngi sàjj di falaale. laa ngi sàjj di falaale ak émission na neex sur la 2STV. ñu ngi lay bëggee. ak ay surprise yu rëy rëy rëy awa. awa surprise di <laughs> surprise. jeeg jeeg may ma tudd Sofia teel li attanu ma ko. maa ngi daal aw seen yàlla. madame Diouf. madame Diouf ay woote nii. waaw. madame Diouf gis nga commande yi gis nga dara daajeekuwul fi mu ne nii. niis maa ngi nii tege. étoile yaa ngi nii wër ko. Sofia nee na nga wax ko kañ lañ defar 2STV yi nga ñëw jël sa télé. kañ lañ ko defar. bëggoon naa mu yàgg ci ligne bi fii laa la koy tegal woon naa ko Ndiaye bu mu dem waaye borom yara du dem vraiment borom yara en Sofia rayu shop comme d'habitude sama waa ji bijou ak raya etega etega def yëfu ete rek saa ba muy moom rek dëgg neexul dimbang fa la nañ dugg si maye ay télé la maye tey dañoo riis de lampe ah lamp baabu muri dina ma déggan dem ba sama waaj borom. keneen ma tëmaatul. eh. oh. kenn sama waaj kenn du la faal. allo. kenn nekkul ci ligne bi. Sofia maa ngi may at benn clip bu garaaw xool ñu doog ñëw nag. gis nga nit loo ma may ma jël. nañ dem ba ñëwaat ma doog ñëw wax la li ci ngor. ayca nañ dem clip ngeen xool kii kan la. ak a yàgg. sachet am na ko ci bi am na gan. allo. alo allo. allo. ku naan soow moom di nelaw ci téléphone bi du ma la may télé da ngeen di wax bu baax ma dégg leen. waaw allo. Ah, gis nga allo allo oui yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. baa yaa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm bu baax ça va. ça va bien merci alhamdulilah. noo tudd ak fan nga ñu woowee. waaw Aïssatou laa tudd. yaa ngi ñuy woowee fan. yoof yoof. ah yoof yoof ci fan yoof tongoor yoof laayeen wala. non yoof asek naa. yoof asek naa. Hmm. xanaa yow alab lébu. ah macha allah. yow alab lébu. non non du alab géwél. non non du ma kon alab ñeeño kon. <laughs> waaw waay ñeeño. ça va ñu sant bu baax noo gisee émission na neex bi. Hmm, merci beaucoup. allo. allo. aywa jënd leen crédit bu mag. tàllal ma de nii bari bay bëgg a dee ñu dañoo puus ba soddu. camion télé ñu war a maye leen dañoo xër te ma ma la wax lii ah. gis ngeen numéro bi leen Sofia jox ak jeeg bi. woote leen ma dem clip te ñëw. ayca nañ dem rési ayca bu neexee bu yembee ci yéen la. tey suñu yaram dafa ah, tàng. let's go. Sofia da koo soxla. <laughs> may ma waali may ma waali ci boppam may ma ko nii may ma ko nii. problème nga ni yow. Ouzin Keita mi ngi mel ni Pawlish Mbaye Pawlish na muñ de eh, waale dàq Pawlish de waale waale dàq Pawlish de. mais Sofia fii nag la fi gën a nuroo. yow jeeg da am plainte. ah da ngay man Ouzin laa tegoon ne bi clip bi sàjjee noonu ay dara bii nga xool naan. waaw bi clip bi sàjjee. xale tegoon Ouzin Keita. waaw. kan non Amady moom mi ngi rafet ba tey Amady meloon la mel. ak Mouhamed waaye kata des. Ameth <laughs> Thiou xam nga ku ma jural. <laughs> allo maa ngi ak Sofia. ati ñëwal. allo. maman. waa ñu télé bi eh, waa ñu télé bi. ma paase Papa Ndiaye. waaw waaw man coow man yow laa bëgg a waxal man. nee na yow la bëgg a waxal nag far. man coow laa bëgg a <laughs> waxal. waxal ak moom waxal daa am lu ma koy def. xale Sétémbéré number two. <laughs> yow fu eh, Papa Ndiaye. da ngeen ah. maa mayoon sañe koor gi. man seen maye laa gëm saa yoo leen sàjjee na da ma sàjj jënd kere di dugg. ndeysaan eh. ndeysaan. man yéen laa gëm. ñun gëm. waa yéen laa gëm noonu. xale Sétémbéré ba mu bari doole Papa Ndiaye lay taam. Eh, moom mu ne na fu ne ci téeméeri deux. kii yow maa doo dóor kat yow. yàgg naa ci ligne bi torop nag. waa ci loo ne ak noo tudd. maa ngi nii man la ummi naa sa xarit bi. sama xarit bu xaataaral bi cum. waaw man la waa Sacré Cœur tabax yow kan lañ tabax mooy yow Papa Ndiaye bàyyil yooyu yow tamit nag. <laughs> man daal fa laa bokk fa laa dama laa yéene télé instant yi dama bëgg nga dem laajte jiwaat. 2STV a kañ la commencé nga ñëw ma may la télé yaw laa ko yéen. yow bàyyi leen bàyyi leen loolu xoolal question yi taxumaa jug. ma ne damay jox beneen bi damay jox beneen télé bi. ma dem man ma waxtaan ma ne. ma ne bu leen neexee sax bu ma may bu leen ma may télé. xaaral ma dem indi beneen mbere. waaw. télé baa ngi ni commande yaa ngi nii. xoolal. ma ne bu leen bu leen neexee bu ma may tele man maa bëgg a dugg man waxtaan ak yéen féexal sama xol nee naa a diis taxulaa nekk Sadio Mané de dañuy maye waa léegi wul jeeg ma ne jeeg bi jeeg bi wuy ma waaw sol numéro 10 taxulaa nekk Sadio Mané di maye taxulaa nekk 2S dëgg la mais wuy ma kon xam nga jeex na maa ngi ànd déglu ma ah yow da ñuy firndeel ne 2S luñ ne dañ koy maye rek dañ koy maye. dañ koy maye ah? man ngeen may peñe. man ngeen may ba léegi si laa yekk ak. waaw kay yow dañ lay may télé bu ngand. ah waaw naa ko sama xarit. waaw moom ñëwoon gi waaw moom la waaw man a maa ngi. te lii firnde la maa ngi ma sama xarit bu xaataaral bi yow da ngaa <laughs> woote woon dëgg dëgg neexul. bilaay. am ci peñe yu baax yi tey nag damaa bëgg may la télé. billaay liñ football ñun Sénégal gagné ko. ñu na kan la woon waaw. match CAN 2019 bi. CAN 2019 ban. premier match Sénégal ak kan la woon. ay waay man est-ce que taloon naa di seetaan man daal seetaan naa ñaari match eh, ndax dama eh, doon liggéey. Eh, xarit Cheikh li weesu li premier match Sénégal quatre match xaw ma cinq match lañ def de. billaay wallaay yooyu noonu yëpp seetaan mu ko man daal Sénégal benn seetaan naa ko Sénégal Tunisie seetaan naa ko mais yeneen match yi moom seetaanu ma ko woon yàlla xam na ko damay wax dëgg rek. ku toog sa di la soufflé. non non non non man kese maa fi ne. ndeysaan kii dama koo bëgg yow. Soufia est-ce que xam nga Tétémbéré numéro 2 moo la gën a féroce yow il faut que ñu keroog toj na plateau na kii koor gi. addiya koor foo dëkk foo dëkk. man léegi damaa déménager maa ngi ci kaw foire jóge naa Sacré Cœur. moom dafa war a ñëw sax def si animation. dëgg la mais yow nan lay def ba nga ñëw di liggéey ci ñun. ah waaw loolu dafa des ci yéen. daw maa ngi ci kaw tali maa ngi ci kaw tali bi ngeen yor oto. da ngeen ma yóbbaale force. <laughs> <laughs> dafa neex barki yàlla dafa neex moom dara safu ko. mais xam nga nañ ko ñaari question kii moo gën a soxor sax. ko ñaari question trouvé wul bee trouvé wul bii. léegi kon nañ a sasaan rek léegi lan la wax ci suñu thème bi lan la wax ci suñu thème bi ba tey mën nañ koo may. tey la. Ah, lu mu doon kii xale dara la kon. Eh, xale ak dara. bàyyi leen ca ca mbay mi oui allo Amore. ma ne seen tam bi lu mu balaa sama crédit di jeex. non ngor ngor loo xam ci ngor ñii ñàkk ngor ndax dara. est-ce que xam nga ni ngor su jigee ci nit rek dara defatu fa. <laughs> yow xale dara nga am am am fan nga nekk nii. <laughs> eh. waaw sa caméra numéro maa ngi sunu kër. eh waxal sa digganteeg yàlla foofu nga toog amul ku toog sa wet di wax ak yow wala yow kese yaay wax nii. barki yonent bi man kese maa ne. waa léegi dama bëgg comme kan bi actualité la na wax ak huit joueurs sénégalais huit joueurs sénégalais huit. Salif Diao huit. huit rek waaw Salif Diao. yéene nga ko Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté. Salif Diao Sadio Mané. Sadio Mané Pape Bouba mu ne. Henri Cissé. Aliou Eh, kii yéene nga ko de su fi àll bi ma ko nangu dañu ko dafa yomb ndax mu nekk ci ca mbere. non instant lii dafa yomb na ñaar ñëwal ñëwal. du ma nangu eh, lool de. am naa cinq nga naan ñaar. allo Pape Bouba Diop ko de ma <laughs> eh, nga <laughs> koy am nga numéro. Ah, xam naa mu bàyyi ko ci suuf. waaw na doon sansam parce que après. dañoo teg ko suba boo woote waatee. Ah. suba woote waatal. billahi ñu may la télé bi suba. teg leen ñaari yoon woote ñu may la télé eh, mais nag Sofia ñoom ñëpp ñu leen di yëngal. faruma de ñu tànn dañ leen di yëngal dañ leen di suba na woote waat. papa man dama doon dama doon bégalanteeg yéen rek télé bi may leen ko keneen man da nga baax da nga gore yow. il faut il faut ma woote ndax maa ngi yéen a far waaw waaw man Dóor TV laa wax ba mu bari doole. déggal lii rey na ma keroog loolu laay seetaan. <laughs> maa la ko wax. mais kontaan naa ci yow ca Cambérène numéro maa leen gën a bëgg merci beaucoup. suba dugg si waatal nga moom télé bi. amul problème. incha lu la neex yow. ca Cambérène numéro 2. merci ah, beaucoup ah waaw tuut laa wax. déggal lii. <laughs> téléspectatrice bu fidèle la ngi nii tamit. est-ce xale la. kii ak Kamaguma. parce que am na xale yu indaale dara maanaam xale ak dara. xale yu indaale dara gisoon eh, naa ko ci gisoon naa ko. mais de du xale kese de <laughs> du xale kese de. mais balaa ñoo sori damay gërëm suma xarit nga xamante ni dafay jógee Paris di ma jox baax yi may sol. li ma sol nag am na ko ci rang. jaaxal li ma coofee jantal ko coofeewul noonu. <laughs> naa ko xam naa garaam bu bu lay doon ci ma ah, Matar Diop suba teel maa ngi lay béggee heure boo jógee Paris woo ma jox ma lu bari. ne ma kaay jàpp ci bagage yi yow ah, maa ngi lay béggee waaw sa jànk bi ah. nag nee ko mu la sali sa jànk bi ne ko mu réglé di ma na ma ah oh koy teg ci temps waay. ci temps baadu. Sofia Papa Ndiaye tey danga may may ma souhaité ki nga xam ni mooy euh, les natifs d'aujourd'hui ñett lañ nag may ñaari laay wax après ma wax keneen ki. dafa neex euh, maa ngi souhaité un joyeux anniversaire à Aliou Koli chéri Fama Mbaye borom golf sama homme de bu baax bi nga xam ne daf maa lakkal nee na ma ci dëkk bi naa tooñ nee na man naa tooñ. bu ma nit dóoree ma ñoo boole kaa. amoon naa ci xarit na ma tooñal waaye ba ma tooñee. <laughs> doo too ko dolli mais Aliou Coly dundal lu bari di souhaiter un joyeux anniversaire aussi sama maam. Mhm. sama maam euh, maire euh, Mbose Ndiaye. Mhm. ak ki nga xam ne mooy Diarra Diop ah doom day Tafa Diagne maam booy dundal lu baree baree baree baree baree yal na sa jaamu yàgg. kontaan yal nañ dund bañ koy weer ak a weer. incha allah képp fi sa fi yaa rek. ñu ngi lay bëggee di la wax gudd fan ak wér ak tal ak mais jeeg tey lan nga mel ni jongo ma nii. waaye tey dama sàjj waay fëlaale jëmbang ak lu ma saf ci réew mi. 2STV lay taxaw nag dëgg ne neex télé bi àdduna di seetaan biir réew bitim réew mu ci profito di souhaité waale sama doom ji maman joojo joyeux anniversaire borom Espagne naaru Yacine si saxoo ah, ah. faisey sa bàjjen ki yaa fay sa bàjjen dëkk bi ah. yëngu na ah. bëgg leen a nag émission pour yéen la yéen moom émission na neex léegi dama leen mayaat leen ci ligne bi dëgg du neex ay ca demal clip bi ñu ñëwaat ci li ma bëgg a wax information de laa doon indi xam nga man maa yow yow nga ne kan waali comme nan róo léegi ci clip ba waali di mel ni Paulis Mbaye nii <laughs> <laughs> allo xam naa sama papa ma nga toog naan Sofiane na bàyyi sama taw bu góor bi allo Amady baal leen ko de allo allo oui allo soxna si ça va ça ci jàmm maa ngi sant yàlla bu wér alhamdulilah léegi nag sax sama crédit baa ngi nii di ma jeex sànq ba tey maa ngi gis bi ngeen commencé ba tey maa ngi woote waaw ñu bu baax. émission bi la nag jéggal naa leen ah waaw yaay booy daa bëgg télé rek moo tax muy woote. Ah, sama yaay ji yow war nga am télé de. ah yaay de abi am na tudd dëkk Pout. tubaarkàlla macha allah Wally Seck mi ñu teg léegi ban année la def kilibam bii muy mel ni ku xiifoon nii. kan la. <laughs> ban année la yaay. ah. yaay yow moom du la laaj lu metti waaw. yaay. naam. yaay. ay yaay naam. yaay bul daaw. jam ñaaja lay wootee noonu. Ah, nee na péage bi la jël nii. Pout laay wootee Pout. mi ngi laay wootee de. maa ngi nuyu waa jam ñaaja ñëpp. du jam ñaaja de Pout la Pout. waa Pout laay wootee taw lu bees tàkk. xam nga télé bi boo fi bëggee sa lépp di jar. waaw def événement di ñëw bëgg visibilité. fii ngay ñëw télé bi nga xam ne bu directeur rek ñëpp bàyyi direct dëgg neex am na ñoo xam dañuy dañuy direct ba pare nga gis nit ki te doo dégg wax. <laughs> ba xam télé waaw mais am na solo parce que bu ñu seetloo ni. sama sponsor sama sponsor. maman ñu ngi leen nuyu maman Marème Ndiaye neexi reer suñu yaay ju baax. macha allah mais dafa am benn xale ba nga xam ne mi ngi toj. scène musicale bi. waaw yow yow xam naa kan la. xale ba nga xam ne man instant yi dama ko séen ci ay nuages. xam nga du Paama de du Paama Dieng du Paama. Assane Ndiaye la Assane Ndiaye waykat ngay wax. wuy ma euh? Papa Ndiaye ci ay nuages laa gis ki nga xam ne mooy Paama Dieng Paama tamit moom lan la moom napp na artistes yi de. mais nag xale yi dañ ko bëgg de. ndaanaan la. dafa yaru ba pare jantal bëgg solu mën na mi def. borom 52 PC yi. ba pare xale bi nga xam a jël musique engagé ko. dëgg la ci jàng ci wane boppam. dama lay wax dara nga xam ko. tubarkalla. nit lu mu doon day dëgër. dëgg la kuy sa bàyyi alaaji mu jóge jeeg. waaw bàyyi mu moo jeeg. waaw bàyyi Sara jeeg ñooñu bu ñu wayul dañ na a war a kil. ah fi ñu toll nii de wax dëgg yàlla Pama Dieng yokk euh, téye na téye na réew mi nii borom nuage yi te tubaarkàlla mi ngi waajal lu am solo. bu neexee yàlla ci li nga xam ne mooy la 2STV bu neexee yàlla. et buñ ko publicité réew mi yëngatu dëgg neexul. ba maa mi ngi waajal lu rëy. li nga wax daal lu waay bëgg rek ñëw 2STV. fii la mburu mi tàngee. fii la yi ñoree. waaw fii lañ bëgg. sénégalais yi fii lañ seetaan. waaw kon ñu dem clip nag ma may leen mais Sofia kii bu ko wax dara waay. kan waaw kii bi ma lay tegal. xaar ma engagé wu taxawaat naa ngi armé waat. Sofia papa Kéba Seck. kii sama papa la. yow ndekete deret du réer. lu tax Papa Assane a ngi mel ni Kéba Seck. ci eh, jamono kii moo kii moo dàq Kéba de ah? ngi nii taxaw del wax papa. papa Kéba tamit yow sa papa dinaa ci ñëw après Kéba bu ko eh. tegee nii. kañ la ñuy añ dañuy reer lañ nag benn lañ. mais nag kañ la ñuy añ dañuy reer rek ñun dañu sonn ci <laughs> bëccëg bi. Eh, mais loolu yàggatul dara fii lay jàllee. ah eh papa ngi waaj lu rëy. papa na indi ndekki geeg añ bi ndax xiifal nañ guddi maa la ko wax. mais man dama fi lay jàllee deux sunu papa yi seen xeetum taille haute yi ñëwaat tey mais yow nangu woo sol taille haute yow. <laughs> yow dama ko xalaat. <laughs> boo ko defee nga gaañ xeetum semis. dama ko xalaat. waaw ah, yow tamit nag yaa ma tuddee lan le danseur fashion. <laughs> sañu maa def ay erreur ak ay l'international. waaw caaxaan mais soo ma defee lool mais euh, Sofia. nga ni nga ni nga papa Assane Ndiaye mi ku mu indilool fii. <laughs> xanaa papa Keba xam nga dafa taaru ba mu yàqu. papa Keba li ma mooy fii nga nekk ci télé bi di wax lu la neex mais yow baali ngay bàyyi baali baali dama leen di daw nag du ma génn lu bari du ma génn sax. <laughs> war naa wax li sa papa daf nag. daf may métti loolu nuroo nañ <laughs> naa de ak maa nangu nuroon nañ mais nag ah sama papa. yow bi nga yow xam nga Keba yow da may wax jéeg jimbang jimbang waaw. saa jifa laa léegi li ma bëgg wax mooy. dégg ah, loolu am na ko Sadio Sophie eh, ndax du moom bu doy moom la dama leen koy paas daw de allo alo hello ay waay kooku daw na de. daaw na mais dugg si waat leen ci ñu baaxee leen li nga xam ni mooy euh, sunu teraanga yi nga xam ne Fall communication moo fi jaar ah la boroom téléphone yu baax yi borom euh, télévision yu baax yi borom euh, électroménager yu baax yi macha allah nekk si ville après dinaa joxe adresse yi mais def leen ni ni ni ni ñoom ah nañ dugg si rek. daal di maye waaw li ñuy wax maay ngor. Mhm. kii may waaj a sargal le 3 dafa bokk ci Sénégalais yi bësal. am na ko Sadji. xanaa kenn bisimilah. alo alo alo allo oui allo. allo oui soxna si. ça va. ça toi baa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. ataay bi nga naan xanaa dafa sedd yëngalu sa put bi de waxal bu baax ma dégg la. oui saba va. yaa ngi ci jàmm. man la di sa jeeg bi laa doon laajte. jeeg bi mu ngi noonu xaar ma paas la ko. allo jeeg bi. ay ca na neex jeeg baa ngi nii. ñu sàjj gaa nga wax li nga bëgg a wax ñu may la télé bu ne muut nga fa maa ngi nii maa ngi ci jàmm. naka <coughs> maa ngi nii rek kookan la ak fooy woote. man la lii sa mbay. ah mbay sàkkandu mbay njaay dañ koy laaj ay question rek fële ko télé. kii dafa ah, baax kii mooy ah. baax yaay baax. amul faralaate de maa faralaate amul noo faralaate amul da ngeen maa da koy jaar ci yoon ñu kere mi kere ko laari Kriston may ko télé. laari maa la ko wax. laari la. Kristone lu neex ñu may ko télé mu sàcc. dimbal Lisa. waaw. nam naa de sama rak xol bi. xale yaayam ak papa bi Lisa monsieur Macky Sall kañ la toog ci nguur gi. ah. monsieur Macky Sall kañ la toog ci nguur gi. monsieur waaw. kañ la. kañ la toog ci nguur gi gouvernement bi. kañ la ko jël kañ la jël nguur gi. kañ la ko jël. waaw. bon est-ce que jël na nguur gi sax. est-ce <laughs> ah yow sunu président di la présider ñaata ak gannaaw ndax jël na nguur gi yow yow yow yow. 2012. 2000. 2012. 2012 ban date. mais eh, liir bi yaa ngi liir di xool ay. archive ah, bàyyi archive lii sax internet ci pet ban date vite fait. 2012. ban date. ban mois ban date. ah xaw ma date bi de. ban bés ban heure. aywa eh, man nag damay bëgg ñu may wax date. bilaay xaw ma date bi. xamoo date bi. date bi xaw ma ko de. ay waay papa Ndiaye posé waat ko beneen question. may ko bu baax bi kenn ko samp. ki mooy borom si presse da koy wax. ñun ñëpp lañu wax ñun xale baax gën riche. doom day papa Ndiaye Thiaw. dafa leer xale yee ko bëgg nawloo ko. dafa leer waaw te waa kër gi la bëgg biir jeeg bi sa jàmm yàgg. amiin amiin amiin amiin lii sax. amiin allahumma amiin. ba nga baaxee ba tey bu noo yàgg waa kii lamp doo wax nag ma may ko télé. Eh, kii buñ ko laaj question dañ ko may télé lim lim ma lim ma baak ris de wala ñu may ko téléphone. nu mu tudd Lisa Mbaye. Lisa dañ koy teral li mu lay bind nga bokk ci ñi ñi def ci pot bi yëngal. waaw. bu bu dee sa sens yàlla la ko yàlla jox. amiin amiin amiin. ça va bien ma loo ci jéego rond-point bi nga ne mooy borom Dakar. lii sa mbay allo. Eh, oh, Lisa Mbaye mu maa ngi dégg loo koy mu baax maa ngi noonu baax bëgg ma sama waaj borom si presse. dëgg du neex waaye tamit fii seen télé la de émission bi seen ah, émission la maa bëgg ah, ñuy sàjj di ah. falaal di jëm ak ñu leen sàjjal. télé loolu waaw Papa Ndiaye fan la ñu jaaree di wax Tamsir rek Fall communication mu daal di indi li nga xam ne mooy téléphone yi. waaw téléphone yu baax yi na ko indi fii nga xam ne mooy émission na neex suba incha dinañ fa doxantu si. Fall ñu daal ñëw rek rek dëgg neexul ñu waneel la ko fii Sofia mhm. li ñuy wax ci ngor ki may sargal la trois muy sumbali bàccili ndeysaan sumbali bàccili lay sargal la trois bu mag bi eh bàccili sempre bu waaw kooku am na ngor bismillah salaam soxna si noo tudd ak foo ñu woowee di wootee fi ñuy wax ñoo joor ani waaw foofu baa ñëpp ci jàmm waa ñëpp a ci si jàmm xanaa di leen bégee rek kontaan ci seen chaîne bi. ñoo gën a béggee ci yow loo xam ci li nga xam ne mooy thème bi. thème bi ban la sax man xaw na ma raw de. ngor ngor ngor ngor. ñi ngi ñàkk seen a ah, ah, yow sama sama doom de ngor moom bu rek moom jeex na. dëgg la. ma ngor mooy nit la. Ah, ngor rek am ak bañ war sa naw nawle. ndax mag ñi nee nañ. ku mar naan taxa naan petite bu robinet yi ubbee. bu robinet tijjee rek nga am gàcce. maa la wax loolu nga ne bu robinet yi ubbee rek. ma ne ku mar naan ku naxa taxa naan petite. waaw. waaw bu na tijjee rek nga am gàcce nga. noo tudd ma bàyyi la ak jeeg bi ak Sofia noo tudd. man Ami Sall. Ami Sall xaaral ñu bind la. waaw bëgg tale rek aw ma tale sama kër de. ah. ma ne aw ma tale de. waaw wuy Sofia mu laaj la. waaw Sofia. laaj waaw Ami. naam Sofia. ban événement la 2STV mujjee def en direct. ah xanaa tan suñ tan bi. ban alo ma ne kan kan lay Lion. non ban événement la mujjee def nii nii nii nii nii en direct. en direct. jox ma ñaar yu mujj rek ci lii. ñaar yu mujj. pourtant publicité nañ yow de dama laa faral sax. ma ne accueil des Lions ko ci. affaire yi lion ci la bokk mais boobu. da ko teg mais am na ci tegu waaw oh daw na. pourtant ñaari yomb laa ko laaj. waaw lu yomb yow damaa bëgg a yab sax. ba da ngaa ma bala mañ sa bi madame Guèye da gaaw a maye li nga ko saajal metti wut de. mënoon na ko fëlaal rek ñu may ko ah, ah, bi tey xam nga man comme lënd la ba jeudi te man lënd ba lënd laay tey balaa maa dem dañuy maye de. ah di la ngor ku ko am sama jéeg bii may sargal muy sumbulu bàccali le 3 kooku mooy jigéenu Baye moo du kan ah. dama koy sargal di sargal Baye Modou Kane ak Papa Dieng doom yaay lu njaago kookoy sumbulu bàcc li moom lu mu joué gën lu mu joué wul eh, waay waay Samba waxal ca kaw muy def tax na tey wax dëgg yàlla xale yi bu ñu ñemee euh, dugg ci cinéma moom am na ci wàllu bu am solo. noonu la amee ngor. waaw noonu dégg naa ko dégg naa. jaww voilà magam nag mooy Séri Balla Gaye moo ngi ci biir. ndeysaan aji maas gay mu ngi ci biir. yow yaa ngi ci biir jeeg baa ngi ci biir. ñoo ngi ci kon la tura lamp loolu faaw ñu def ko. waaw la tura bëgg wax ni. fii fii fii ku fi ñëw rek xam ne 2STV la ñu ngi jël seen tur yi mhm. dinañ leen dugal ci pot bi mhm. ku ko yàlla jox ñu jox la ko ndax lii du pour ñun du metti sax waaw cim bilaay du metti waaye ñu koy nooyale dafa poids yow non du metti gis woote tey sax suba bu ñu woote waatee ku ci tenté sa chance rek muy même tur bi ñu retenir ko dañ la koy jox sànq yaa ngi naan xaw ma kan ak kan ngi lay seetaan waaw sumbulu bàcc li magu njoogu boo ko sargalee sargal ku baax ki ñeme loo xale yi baax gën riis sama waajooj moo ko ndaw mburi bàcc li dëgg du neex Seydi Balla Gaye Seydi Balla Gaye waaye tey dafa am sama yaay joo xam ne ndeysaan mi ngi toog jàkkaarloog télé bi bu woote woon sax du ma ko may télé mais combaan yaayu seeni mu ndaw yaay abi yaay Jóob Faal yaay jëbel Njaay bu duggoon léegi ma may ko télé sama yaay jooju ëpp maa la wax lii di nuy waale waa Cambérène 2 ñëpp dugg leen dugg leen yéen ñëpp dama leen di sàjjal nii télé. borom anniversaire yaa ngi maa la ne borom anniversaire bi ci des moom ci borom kër gi la. muy faatu mooy suweetee un joyeux anniversaire ak ki nga xam ne mooy euh, Ndeye Khady Ndiir borom Golf waaw moom mi ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire ah ak nga xam ne mooy Khadija Fall ak Amina Fall nee na na dund lu bari ba fekkee seen njëriñ wax dëgg yàlla nee na ku baax la ku gën ci ñoom la liñ koy ñaanal yàlla mooy mu dund dund dund dund lépp rek di saawaan baawaan. mais Sofia xam nga ne bésu bésu bésu sumbulu bi doomu yaayu. Seri Balla Gaye doomu yaayu Njóogu doomu yaayu Buri. Buri bàcc li loolu du yomb. mooy na Nabouja. borom tëngee xam nga lu tax ma sawar ci lii mhm. su ma lu danoo pik dëkk Pikine du wax lu ñaaw def lu ñaaw waaw waaw te bu ñëwee danaan la bul gëmm bul déglu bul lijjanti avancé mais Papa Ndiaye boo nekkee modèle yu bëri da nga koy moytu déggal li mhm. bu nit ñi di xool ci yow di copier ci yow nga nekk référence ci réew mi lu bëri lu bëri war a man du ku ma jóg sargal la de mais damaa ah, gis ñu téye seen yaay man damaa bëgg ku bëgg yaay maa la wax loolu jàppale seen yaay am fuñ ko teg mhm. yàlla na seen jàmm yàgg waaw yàlla seen jàmm yàgg léegi li ma bëgg mooy ah. ngor ak gore bu dee ci nit ñi woote ñëpp ne leen dara desatu fa ay waay Sénégal nan ànd ak sunu ngor xam ni yàlla moom mi yor ay yëfam heure bu la waree may dalay may Papa Ndiaye euh, nit dafa war a am li nga xam ne mooy dignité ak personnalité eh waay te je pense loolu bu nekkee ci yow rek dara desatu bëri di nag di nga ko jomb mais nag il faut xam ne ñoo xam ne dañ leen ko war a jëndal mi ngi jaay de waaw naa ci jëndal lampe te seerul <laughs> am na ñoo xam ne tam mën nañ leen a may rek am ñoo xam ne tam mën may ñu leen <laughs> seerul seerul <laughs> gis nga Papa àdduna dara bum la taxa dara bum la taxa ñàkk sa ngor mhm. mar naan bum la tee naan petit parce que amaanakat yaa ngi def euh, yaa ngi jéem a xam nga def lu bon wala ñe jéem a ñàkk ngor ci nit kooku mais pour temps yow ëllëg ci biir mën nga ko gën demin mën nga ko gën demin waaw waaw boo ko mën a jàppale. boo gëmee sa bopp dëgg-dëgg nit kooku nu mu mel. Mhm. war nga mën a dem ba suut kooku. maa la wax mais ci kaw personnalité ak dignité ak patience surtout. Mhm. gëm yàlla. Mhm. parce que am na la xam suñu borom moo koy def bu ko bindee ci nit kenn mënu ci dara. dëgg la nañu ànd ak ngor. te moytu yu bëri parce que àdduna aussi yàggul. waaw demal maa ni ñëw la lu la nuyu lu nekk da lay. tànn Sofia dafa am ñu bëri daa am leen dal. waaw. yàlla ñu ci yàlla da nga koy gëm 100 pour cent. mooy ça veut dire boo xëyee gis ni tey duute rek la la jox naa na sa duute de tëb. dëgg la duute dafay barke. mais da koy gëm ba pare wóolu ko. dëgg la de ba pare Papa Ndiaye. Mhm. ngor ni da ko war a am te lu war ta fàtte. Eh! surtout maa la wax lii ngor boo ko amee doo fàtte. doo fàtte démb. Mm-hmm. lu am tay rek da ngay jël démb xëcc taf ci tey mm-hmm. kon nit ñi war nañoo am ngor. te xalaat seen démb te xalaat non waruñoo fàtte démb nag. Mm-hmm. ndax buñ naan démb buñ naan tey démb tax eh. dëgg du neex waaw papa Ndiaye ngor rek moo am solo te bu nekkee ci yow rek da ngay fa laal di saa ji di mag dëgg du neex waaw fàtte démb mais mm-hmm. c'est sa tay nit ñi am na ñoo xam dañ la koy yàqal waaw Sofia dama fi fekk sa posture bi nga nekk nii ci niveau bu baax boobu noonu duñ la ko yéene dëgg la sosalante Sofia dafa am ku ma àndal tan xale dëgg la mais nag kaay ma xamal la papa mm-hmm. Ndiaye ki nga àndal mu yàgg lool ba egsi ba fii

oto la doon xaar ci yow oto la doon ci yow. billaay te loolu baaxul. daa am ca ñu jëm ba. est moo may woon nii sax. allo <laughs> allo. damay dem clip ñu ñëwaat. waa ayca Papa Ndiaye may ma loolu. Euh, sama mag Mbayang ja euh, da doon ngénte barki Dembo Ndiaye. wax yaa ñu dugal ci ngénte yow ni nga ah. mënee ruube. non dañ doon tudd rek xam naa ni laax yële fa naroon indi rek. mais si woon na tëri rek. mais dafa fàtte li nga xam ne mooy ay jesner ci taxi tay oui neen oh. yu bari da ko doon dem. terali ci ay njëkkeem eh, eh, taximaan bi aywaay tabaski bi yàlla naa dal ci taxi boobu ci ngay nammee ay jas neer namm saak. <laughs> bi ñu ngi lay ñaan yàlla parce que fayum yàlla moo gën bu nit boo gisee jas neer yooyu ah, nga ñëw ci la 2STV wala nga wootee ci numéro bi di 77. 457 76 44 nga delloo li nga xam ne mooy jeesneer yi parce que kat ah teral sa njëkkëj teral sa goro kat ci sëy la bokk yërëm ko rek te yaa tax ak fi jamono ji toll ni jàpp ci rek Sofia loolu nga wax am na solo am nga solo lool mais yow mi yor taximaan bi man bis lii bis boo ko delloo ma bàyyi la àddina ak àllaxira dina am lu dun maa la ko fi nga ko jàllale la ah damay waxantu di nga ma woo ma feeñ na fii nga ko jàllale. dëgg wax na waaye man xam nga ni keroog lan laa la wax fii. newoon ba pare taximaan bi xam nga lu ma bëgg na ko indi. na ko indi fii 2STV da ko indi rek ñu may ko télé mu lew ko doom mais bu yóbboo jasneer yi du ko lew. te ñëw ñu may ko du ko lew oh, maa la wax lii day taximaan man bis boo indee li man maa bàyyi man Papa Ndiaye <laughs> tabaski bii indi ko xool. <laughs> Papa Ndiaye li ngay def waaye. <laughs> indil li rek xool yow xam ne yow manqué nga. bàyyi li ngay def waaye yow eh ma indil. am na eh, am na lu duun lu lay xaar. maa ko wax nga laajte Soufia wala ci direction bi nga bàyyi ko fi. incha maa ngi lay wax taximaan boo gisee loolu nga indi ko ndax. àdduna moom li la yàlla denc la ëpp loolu. Mm-hmm. numéro yi la Sophie laa jox ak la jeeg wax andi ko. Mm-hmm. am na cadeau bu rëy bu lay xaar. Mm-hmm. ndax kooku da ko def ngir ay goroom. ndax dompat sax ci sot la bokk. damay dem clip may leen waaye Sophie yaa kii moom. tudd ngeen ko yàgg jeeg mooy gaañ naa leen. na bañ a sol lu lu kii rek lu yàgg rek. <laughs> ayca ku fi nu lool rek dinañ ko wax. clip clip clip clip <laughs> Eh. kër gay toj boo waxee rek nañu dégg yow jeeg na nga noppi. xam nga mi koy boobu Tom et Jerry. kan la eh. góor gi. Eh. <laughs> chéri baas li nga ko yàq. <laughs> non bébé daf may baal. non man duma nga man naa fi mu toll mi ngi toog di ree. mais kii mi ngi mel ni jaw keccop kii. waaw mi mel jaw keccop. <laughs> laay tey ñi lay dina bari. Sofia xam baas non du ma ko jege. naa koy séen di ko laaxatu. ndax xam naa bébé baas moom ma njëkk Pape Diouf ñu la lu ne ci réew mi. Diop Keita mi naan la. men <laughs> vraiment lamb sa bi war nga ko defaraat xoolaat. billahi dafa neexoon Papa Ndiaye. waaw Demba xoolal ma Pape Diouf dafa des sañ def chemise velours tàngaay di ko rey ci clip bi. <laughs> eh mais clip bi seen daay la tombeel. chéri bébé Bass bi seen daay la tombeeloon dëgg du neex. su fi yàlla dem mais man waxuma leen loolu lépp de. sama doom nday Mamaane la mu garaam bu gis nga. waaw Mamaane. <laughs> musuma gis lii. maman la nag saison bu mel ni fëlaale grand bu trois pièces. <laughs> drapeau Sénégal yi ñu tax ci bi. wuy des na keneen dimbali ma rek après nga ñëw comme que gars yi yéen a ñëw eh, ma benn clip bi ma tegal ma doog a ñëwaat amul ku wax. <laughs> tey daal dina neex eh, jox ma ki ci topp jox ma ki ci topp jox ma bi ci topp Régis s'il te plaît atia ak jeeg bi ñëwal ñëwal ñëwal. tey daal journée roubée allo. allo am na ci ligne bi de. pourtant mi ngi ci de wala. allo jëw kay jëp tam. allo <laughs> non amul ku ne ci ligne bi amul ku fa nekk léegi jekk jeeg xam nga ne émission bi Sénégal ko bëgg. maa la wax lii man damay jot ay kilifa yu ñu woo dañu ñaanal. looloo am ndax tey teguñu rek animation. Mhm. te du ñu waxtaan ak doomu aadama yi. dëgg la tey teyloo leen teg leen ci kot ne leen nii la ak nii. dëgg la àdduna amul waaw waaw xam naa ni yooyu yow tamit yow. ni nga nii laa koy jotee lu ñu lay wax. lii lañ mi wax naan ma émission na neex li ma ci gën a neex mooy ci 2STV yi. Ah, thème yi ngeen di joxe di ci waxtaan di ci yokk nit ñi xel ak xalaat. Mhm. xam nga ne tey li ñu joxe fii thème lu ko gën a ris amut. dëgg la yooyu noonu ba pare dañ cee dañ cee am yuñ ci ñambaas saaj di leen may ay téléphones yu baax ay télé yu baax Sofia Sofia joxal adresse émission bay màgg rek laa la ca te mhm. incha allah kanam la jëm mhm. mais baax na saa su nekk ñuy divertiru di kaf di foo di ree parce que loolu aussi day dundal xol mais aussi di éveiller éveiller ñi nga xam ne mooy conscience wax ko ci olof raw <laughs> ñi nga xam ni ñooy mhm. ñoo ñuy seetaan wax dëgg yàlla rawatina euh, jeunesse bi parce que instant yi dañ toll ci li nga xam ne mooy vacances xale heure bi ñu ngi toog di seetaan télé mais baax na bu gisee Sofia Papa Ndiaye jeeg bi di fecc di reetaan nga xam ne ñoom buñ toogee ba conscient dinañ ci mën a jariñu dinañ ci mën a dékku te dinañ ko mën a jëfe mooy li ma lay wax rek mooy li ma lay wax nee naa la émission bi na neex la tudd de mhm. mais ci biir la neex daa am code mhm. li ne ci biir moo gën a neex na neex effectivement mhm. al dañoo daje fii fii lañ daje moo moo def émission bi sànq. waaw ñu nuyu. moo jeexal mu ne ma man du ma seetaan lu bari mais yéen dama leen di déglu. waaye li ngeen di def ci diine di sensibiliser nit ñi. di leen delloosiwaat. di def ay man neex na ma. dëgg la te loolu laa bëgg ci nit. Mhm. ma ne ko nit moom bu lislaam dañee ci moom li des lan moo des ci moom. waaw ba pare ah, jege askan wi dëgg neexu. kon man dañ fi teg nii rek di di teg ay musique di kii eh, déedéet dañuy waxtaan ak yéen. Ah, ne la nit bul yàkkamti yàlla mi la sàkk fi nga war a toog li nga war a doon garaat yi mu la war a takkal mindeef mënu ci dara. te Papa Ndiaye nit sax. yàlla la ñun ñu taxaw nii di wax sax bu ñu defee naka su dul noonu yéen ñi téléspectateur yi nañ dugg si ne ah bu ma sañoon kat seen émission bi ngeen def lii ak lii ak lii. fii de ku fi dul déglu conseil lépp ci avancement lay doon. boo dul déglu conseil maître doo ko avancé. dëgg la moom dëgg la de. da ngay déglu ñi lay wax. Mhm. muy cameraman muy lamp muy jeeg bi muy Sofia muy ki ngay dajal ci mbedd mi lim lay gis nga ne wax naa la ko keroog am ku ma woon na ma fan nga déggee loolu nee naa leen bu bu bu wax amoon njariñ yàlla ñaar la ci def mhm. waaye déglu moo gën a am njariñ moo tax yàlla defal nit ñaari nopp dëgg la déglu moo gën a am solo wax dëgg la ay kuñ ne tepp sa benn nopp foo jëm. <laughs> Eh, dootoo ko defati dootul. Sofia dama leen di mayaat kii mais kii moom amu leen lu ngeen ko wax rési. ni xeex la guerre mondiale ah. la yi ñu sàcc. camion télé ah, ci bi camion télé waaw ah, rombo camion bu giri bi. am na yeneen yu ñëwaat suba de. camion téléphone bu giri bi ngeen romb noonu. moo def télé yeeg téléphone yi man de léegi damay wax ala ba neex ma ma toj. laaj beneen <laughs> te loo ci xamul dama fuutaay di def lu ma neex. technicien yi sax ñu fi jot a nekk tey dañuy yóbbaale. kenn du faal électro waay la ilaha illallah faal yéex naa ñëw de eh, technicien yi dañuy yóbbaale télé tey ndax xam nga camion bi tey la ñëw tubaarkàlla. Sofia eh, tey maa bàyyi téléphone yi ndax sama géer yi ma war a teral yëpp. xam naa bu leen ma woo sama téléphone. waaw kay wootee leen ci ci téléphone télé télé bi rek allo waaw soxna si. salaamaaleykum. maaleykum salaam ci loo ne. maa ngi ci jàmm. waa yaa ngi ci jàmm bu baax. waaw. alhamdulilah noo tudd. Kala Sofia. waa Mboroma Tocc mi ngi nii. Sofia da nga neex. ah yow fii la buujoo yow. maa la raw bilaay dama la suivre tout le temps. ndeysaan noo tudd. Ndeye Khady Diop. Ndeye fan nga may woowee nga ni. Medina. Ah, waa Medina yow Ndeye Khady maa la gën a sopp kontaan naa bu baax. naka Medina. ñu ngi fi. Euh, ban rue nga dëkkee. rue naa fa ay xarit de waaye dañ ma bàyyi du ma tudd seen tur garaaw dama ci def kot. ay waay kon maa ngi nii. mais yow moom bu ma ñëwee rue 22 yow seet sama xarit. ah kon kontaan naa xarit da ngaa bëgg télé. waaw. ayca euh, Bamba Fall kañ la jël maire bi. kan. Bamba Fall. monsieur Bamba Fall. 2009 mooy borom Medina de. 2009. ban euh, date ban mois. fàtte naa mois bi de. fàtte. waaw jox ma sa tur jox rek yow. Ndeye Khady Diom. ah. Ndeye Khady. Ndeye Khady. sant bi waaw Diom. Ndeye Khady Diom. xam nga Laye Fall wala kii euh, kii waay euh, Laye Fall borom borom borom borom xam nga ko wala xamoo ko. dama koy dégg nii rek de. Baye Demba nag Baye Demba 5 xam nga ko. déedéet. sore woo leen. waaw sañ sañ. daa mel ni dafa tubaab Medina yi. waaw ok ah, léegi ma laaj la dara yow. bu leen ko sot sotoo de sama fan. man laaj de. wala la njëkk liggéey doog ñëw fii. dégg nga. Cece Mbere ban télé la njëkk liggéey doog ñëw fii. Sofia ci dellu laa benn problème xarit yoo tamit ay sama xarit damaa tamit nag. kii du yóbbu dara. wuy ma sama xarit bi ban dëkk la jógee doog a ñëw Sénégal fii dëkk fi kan ci. jeeg bi ban dëkk la nekkoon. man jeeg. kii taxaw jeeg bi. wan ma ko jeeg bi yow jimbang. dimbang saa yi xam ne moo ko man social lay suivre. dégg nga lii ah, amul problème c'est suivre. voilà góob nga waaw kii mooy jeeg bi man man ah. man Sofia même ma laajaat ko yow seen ñetti question yëpp nga faussé man bari clip laa njëkk a fecc. Eh, du ko xam xale eh, la kii kenn du ko may dara kenn du ko may dara. bu leen bañ. sama xarit. duñ la may tus sama xarit. nii allo dama ko mere ba ci ginnaaw fee sama xarit sama jéeg bi dala mere nii moo tax. dama meraatal ma may mere. mere naa la de. aywa lu def loolu bu di sàjj fii ci 2STV nga ne xamoo ma. maa puus. maay maye télé yi doo laal. aywa bu def loolu. aywa eh, ban kilib ban kilib laa njëkk a fecc. dégg nga. ban kilib laa njëkk a fecc. yow Pape Ndiaye déedéet man xaw ma man clip nga njëkk a fecc de. Eh, waaye amul sens waay man xaw ma man clip laa njëkk a fecc. Missouwa. non man tout tànk laa moo tax. oh oh waxal Missouwa. Missouwa. Missouwa. naam. yàlla nga bokk ci ñuy gañe incha allah dinañ la bind dugal la ci pot bi yëngalal la. waaw ko. amiin borom ne dinaa xale ca sa télé sa xarit. waaw ndax naam suba dugg si waatal nga bokk ci tirage au sort bi deux appel lay doon deux jours boo dugg si waatee bu yàlla defee ñu génn la ma may la télé incha allah. waaw merci. suba dinañ la déglu dégg nag damaa bëgg nga xam ni. chaque lundi jeeg bay ñëw chaque mercredi aji maas. chaque jour bi soxna dégg nga. waaw parce que yooyu yëpp dañ la la may nag xàmmee ma de. waaw dina la xàmmee léegi. waaw kii mooy jeegu rond point waaw kay. ok merci. allez merci ma Bamba Fall. nee ko nag mu bàyyi di ma bippé damay woo. <laughs> Sofia waaw. ba tey maa ngi wax Papa Dieng ak Lulu Ndiago sama gaa yooyu nañ pare la 3. incha allah ma sargal sama jigéen boobu. su mun bàcc sempere ak Baye Modou kan ma sa ma sayer ndaak. waaw na ma jox ku bañ na ma jox sama yaram da ko miin maa ko bëgg. sumbulu bàcc la ñuy sargal bàcc la sempere buuru ngaram. <laughs> xaaral kata borom Kumba Ndiaye borom keppaar gi culture takkul ba dëgër sa jigéen bi la ñuy sargal ana Asmalik sàmba xale yi takku leen ba dëgër. dana mel ni. dana mel ni njërndeem ndax kàcc kàcc ga dana bari xale yi collection yi lañ ciy def. ñu fëlaale Sadji Jemma ëpp na. waaw mais jéeg demal ba léegi nga fëlaale eh, lii ëpp na torop ni nga def. Birame Koumba Ndiaye lay doon Alma Boyan Sène Ndiaye Xaadim Kase fëlaale saa ci jëm. waaw lu ma saf dëkk bi yëngu. waaw ana Kéba Seck moom. waaw papa Kéba. Kéba foo ne. eh koo koy bàyyi Abia Diop Fall. kañ la ñuy añ. Sofia ah, nga ni eh, eh génn na de. Eh, papa ba mu dalee way reer ba pare ñun ndékkeetuñu añatuñu imaginer journée bi yëpp ñu xiif. di reer rek. mais Sofia tey est-ce que xam songu léegi nii. dañuy régime fi papa ngi waaj lu rëy. léegi nag ki ma indi ki ma indi non mi ngi waaj lu rëy di nga ne waxoon naa la ko fii fii lay jàll. ki ma leen di tegal leen xool leen ko. régi may leen ma clip ngeen xool. kii moom amu leen lu leen ko wax parce que barki démb la clip bi génn non clip bi barki démb waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw kookoy a woy lool. waaw ba jaaxal xale yi. Hmm. ah yow yaa ngi noonu rek <laughs> Sofia moom tey bu tudd na la mooy gaañ naa ko jeune talent yi dara ñi ñoo ñi ñoo def dëgg du neex dañoo way danoo sañse. bilaay mel ni Sidi Diop nii. <laughs> Eh, waaw ba pare ñoom ñaar dañoo niroo débuté de. Sidi di fecc rek booy Sidi di siif booy Sidi da koy booy. ay booy Sidi da koy yëngal booy. ci Baye Niass na bàyyi xel ëllëgam ndax ndeer mii lay joxe après. waaw waaw <laughs> Baye Sall numéro de. ménagère Sidi Baye Sall de. mais benn lañ de. benn lañ de na dem bàyyi kii Ibou Seye lay nduroon. mère Ibou Seye la ma jox fii ah Ibou Seye Ibou Seye mooy magu Sidi Diop <laughs> Ibou looloo tax mu ngi maa la wax lii. ak a mën a way. ndeysaan ak a mën a way. daanaan la te de. man xam naa tey yow yii moo may daaneel moo tax nga indi ma sélection yi yàgg. léegi nag dafa am balaa may tëj damay jox jeeg. waaw mu wax. li ko xaadim mais xaadim kase gaañ na la nag. ah Biram Kumba Ndiaye. sol sola borom soxor ciseau borom ciseau d'or. sol sola Biram Kumba Ndiaye almaa booy. yaa seen bu sàjjalee Viviane nga kontaan bu sàjjalee Titi. maa la ko titi mooy réew mooy bitim réew. te jaal ma jaal maa boo Yacine Diall. mais nag euh, Ndeer bi fi jaal dama koy may sama yaay de. ah maman Anta bëgg fàllu. yaay njaboot. Mm-hmm. ma jaare ci tàggoo waale naan leen ndox daje ba leen dee jàmm ak salaam. di ñaanal sama yaay mu yàgg fi di wér sama papa dëddoo. jàmm ak salaam te àjjana yi gën a kawe. e maa ngi nuy sama doom baa yëpp nuyu sama doom ndey yëpp waa Kaolack du ma lim daal. maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp. Cambérène ah, yoof waaw Cambérène ñëpp maa ngi leen di béggee ah. di leen réew mi yëpp ak eh, Anta Thiam dama maa ngi tuub tey déggalu Anta Thiam moo jaar ci greffage nice bi yaay Mamita Ñong Aïcha Kaay nice Cheikh Khadim rafet juma maa ngi jéggalu de Kaay nice lay doon ah, jéggal nañ la ko mais ñu ngi remercier spécialement Fall Communication moom mi nga xam ne mooy jaay téléphone yi ah, ak accessoires yu baax yoo wax dëgg yàlla décodage réparation TV électroménager ordinateur mi ngi nekk fële nga xam ni mooy 13e euh, rue de Hann angle da Dagoré derrière la grande poste en face PHS euh, fii nii la nekk rek ginnaaw 2STV bi mhm. macha allah suba dinañ fa ñëw def si euh, ut si élément bu am solo jël si ay téléphone incha allah xam naa dinañ ñu ko jox. di remercier ci télé yu baax yi nga xam moo ñu ko jox ngir askan wi. di remercier spécialement rajo shop Euh, bijou ak raya ñoom ñi jaar ci sañse bi jaaro yi ba fi nga xam ne mooy ci dàll yi numéro de téléphone c'est le 77 909 22 46 wala nga def 78 420 46 45 di remercier salon Safietou borom perruque yu yomb yu baax yi spécialement à elle 77 536 23 5 se remercier ama bari na jeeg merci beaucoup dañ jàpp moo tax Xaadim Kase gaañ na la wax li Xaadim Kase defal na la fël-fëlaale waaye damay defaat sama yére ci mbuus ñëw ci sargalu sumbulu bi cim Aïcha Kaye maquillage ma mu ne muut Anta Thiam laa ma perruque ni nga sàjjee wax ñëwal Papa Ndiaye baal ma mais numéro de téléphone Fall communication borom téléphone yu yomb yi c'est le 77. waaw 630 48 48 wala nga def maa la ko wax man damay gërëm sama xarit sama producteur Matar su ma teel day jàpp ci sama combat moom mi nga xamante ne doonul sama producteur rek toog di ma seetaan waaw waaw. maa lox loolu sama waaj sama waa ji ndama ngi ci gàcce ki mais tegoo ma benn gàcce di leen wax nag damaa kontaan ci Baba Ndiaye 313 ma xuja Eto production. borom marine. borom marine waaw kooku day ñëw Eto production. yow pareel yaa ngi ma xuja la 3 may sargal sumbulu. waaw Papa Dieng ak Lulu Ndiago Baye Modou kan ma sataak ma sayer ndaak dama ne kontaan ci Sénégal na neex yéen a ko moom di leen bëggee. di leen ah, kontaane Mère Yacine maa ngi lay bëggee bu baax borom kër Mbay Fall. na sa jàmm yàgg jimban. waaw man man télé yi dama yóbbuwaat man télé dama koy maye. Eh, télé dañ koy maye de. Eh, dañ koy maye dañ ci may na Yanda Diop kaw la. maam Cheikh Ka eh, na Yanda Diop chéri maam Cheikh Ka. xoolal Youssou Ndour bu bees bi xaaral ñu xool ko pare. Why you